fa génn amaana saay-saay pour mu dugg fa day yomb léegi nag malgré que fii mag ñu baax ñaa fi li fi waaye di pexe moom na nga ko seetaat mhm. ndax fii ay mag ñu baax bi lii Sénégal du feneen de donc nag foofa it lan ngay déng njiitum réew mi sa sët jomaay ndax pétrole bee gaz bi feeñ na fi ñuy fexe rek nuñ ko aaree ba ñu mën cee jot Sénégal bu ne mën cee jariñu waaw ñépp war cee mën a jariñu nag mm. li may wax jomaay euh, pétrole bi feeñ ak échange bi see gaz bi gaz bi feeñ mhm. te lépp yàlla teg ko nag ci say loxo mhm. jéem koo aar mhm. yal na nu yàlla aar le nag amiin ndax yàlla rek a mën a aar nan ko diis yàlla ak yonante bi ak jom ak fulla ak fayda te yaakaar rek te yaakaar nag la nu am mhm. moo tax ñu sànnit la mhm. bëgg na nanu la mhm. yàlla jiital na la yàlla na la yàlla jàppale ñu wàññi nag wax dëgg yàlla foofu euh, muy yenn post ministère yeeg yooyu quoi vraiment yenn poste ministère yooyu nañ ko wàññi dafa bari hmm? sëñ Saliou dañu wax dëgg quoi ministre nangam ministre nangam eh, yëfi caa yëfi caaxaan rek xëy na ñoom dinañ changer système incha allah tey nag yaakaar gi ñu am ci ñoom yàlla bu mu tas ajaratu faatu nag euh, li tax sax ñuy faral di waxtaan ak moom ci ni mel naam sax yaram bi mayewu ko naam wér gi yaramam mayewu ko ak âge ko yàlla jox waaye yàlla dafa dogal ni li muy wax sax muy am dafa bari te du toog ci média di ko wax ñun xam nañ ci dara li muy wax muy am dafa bari te du woo du sit internet du ko seet si wala télévision lu bari li muy toog ak ay sëtam di leen wax parce que ñoom ay saltige lañ dañuy toog seen biir di wax xam lii ñëw ñu koy waxante nii lu muy wax ci suuf muy am dafa bari donc nag moo waral léeg sax ñu koy cof wala ñuy seet ci muy waxtaan ak sénégalais yi loolu moo waral ak génn mais sàkkootu ko nekkatul sax lu mu bëgg amaana ñu ñoo ko bëgg waaye kon loolu rek mooy yaakaar gi nga xam ni am nañ ko ci ñoom Sonko Jomaay yàlla bu mu tas te it nag ñu bàyyi folklore gi te concentré wu ci liggéey passation de service bi wala su ma juumul prêter serment ñu ngi ko war a def le 3 ou bien le 4 yaa xaw ma sax kañ la waaye jàpp naa ne ci ñaari fan yooyu benn la ci donc nag ñu concentré wu ci liggéey Baye Fall nañu concentré wu ci liggéey te bàyyi nag wax ji parce que instant bi ñu toll ñoom nekkatuñ opposition ñoom parce au pouvoir la ñu nekk léegi. ah opposition mooy léegi waa APR ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen léegi ñoom ñoo nekk parti au pouvoir léegi bàyyi leen nag influence yeeg gars yi topp ci réseau non non non liggéey instant bi ni moom liggéey te ngeen xam ni léegi njiitum réew du caaxaan yàlla bu yaakaar bi tas fa la ñuy tëjee euh, na ngi ñëw nekk ci beneen fa beneen mbir mi. mooy li ñuy wax à chaque fois ñun di la seet si di waxtaan ak yow te duñ la laaj ñeenti ponc yi parce que ponc yi yow da nga yow da nga bokk ci ñu koy def muy est-ce xam nga ba fi may waxee ak yow nii ci salle bi fi nga toog nii am na koo xam ni ba léegi mi ngi bëgg a sëy mënut a fexe ba am jëkkër. Mhm, te yàlla may na ko mu mel ni mu war a mel mooy wàllum rab mhm. macha allah rafet na rafet goo xam ne ay lunettes dem la takk macha allah jekk ki ko war a takk sax mi ngi fexe mais mënul fexe ba takk ko kenn xamul lu ko téye lan la donc loolu laa bëgg a xam foofu laa ñëwee de ñoom laa njëkk a sànni xeer tey muy wàllum rab kuy góor ki moo am faru rab wala ku jigéen gi jabaru rab waaw loolu bëgg naa leeral ko jigéen ñi nga xam ni maanaam dañuy bëgg a sëy mais mënuñoo fexe ba sëy waaw wala benn gomis bi nga xam ne day bëgg takki jabar mais kum doxaan rek bu subaa mu bàyyi la seeti keneen rab day lu mel noonu ak saaj saaj bee koy def rab mhm. rabay def lu mel noonu da ngay bëgg am sëyif sax pour bëgg ko cee def rab ne la du fi dare nga dugal ko feneen da ngay soxla dàll yi bëgg koo jënd ne dàll wii laa bëgg a jënd xaar dem di ko waxaale far gis pot bee jënd ko di ko réccu loolu yëpp mbirum rab la gis nga lu jot yomb mhm. yàlla sunu borom lu jot rek yomb. d'accord dañu bëgg a taxaw ci mbirum rab loolu moo tax ma laaj la question yooyu dama ni. rab déggoo li ma parce que du nekkul lu nit gëm xaaral. dañuy waxtaan nekkul loo xam ni sénégalais yi dañ koo gëm gëmuñu ko. ñu bari te te li ngay wax ni dafa am maanaam fee yu muy def nii bëgg a bëgg a sëy fexe ba sëy bëgg a takk jabar munul am dafa am te loolu nit ki rab moo koy téye te du ko gëm te alors ko il faut mu dem gëstu ay mbiram pour mën a génn saraxam xam ne lii rab moo ko def. xam nga. Mhm. sénégalais dañoo gëmul rab. Mhm. te lu am la mooy ànd ak moom ku judd judd nga ànd ak rab. école yaa ngi nii xale yi daanuy dikk. Mhm. lu leen di daane rab. li nga bëgg dara am takk sa jabar indi ko nekk ak moom mënu leen a ba am jàmm rab raba koy def mooy dox sa diggante ak sa jabar mhm. léeg mu dox diggante ndey ak doom mhm. léeg-léeg mu dox diggante jëkkër ak jabar mbaa dox diggante ñaar ñu bëggante te mënuñoo fexe ba sëy d'accord mu dox diggante ndey ak doom mooy da leen di jaxasa ba léeg doom du déggal yaayam voilà ok léeg mu dox diggante jëkk jabar ak mooy diggante jëkkër ak jabar léeg-léeg seeni coow lu ci ëpp guddi lay nekk wala nga soxla sa jabar mu bañ wala nga soxla sa jëkkër tey mu ne la damaa sonn wala rab dëgg rab rab xibtal ko mu dem foo ci àll bi bu ñëwee jabaram soxla ko mu ne ko damaa sonn kon dafa mel ni loolu mooy rab mooy po mooy bay def loolu yëpp raba ko def dañu koo gëmu nag waaye lu jara seet la rab la de mhm. léeg-léeg nga am dara yaakaar ni man meekat nangam lee nee nañu dañu ma ko indil mhm. duñ raw de du fi jaare de du mhm. ñëw tey muy yaakaar ju tas léeg-léeg nga yaakaar dara war cee jot doo ci jot léeg-léeg nga am ba noppi loola seey te doo xam ci lu muy dem d'accord léegi bari ñu ñëw ci mbirum doom ci rab léegi point yi nga wax nii lan moo ciy pexe pexe bi njëkk mooy maam jaara bëgg na am jëkkër mais munul fexe ba am ko muñu bu ñu ko sëñ Saliou bëgg naa takk jabar mais munul fexe ba takk jabar doxaan moo koy neex mais pour mu dem takki jabar yóbbu waru góor munu ko te day yor xaalis loolu rab la raba koy def de rab mhm. moo lay def ma ne la nga yaakaar dara mu yàq ko mbaa nga am dara war ko faa yóbbu rab yàq ko léegi lan moo ciy solution bi alors dafa laaj ay sarax nag. dafa laaj ay sarax ndax rab boo seet bu ñëw nit dikkee na la seetal ma nga xoolal ko rab laaj sarax ba mu laaj soo ko génne bu ci yàlla àndee yàlla mën na ko sottil sarax rek lay laaj. kon ki mu jàpp da koy xelal na ko waxuma mu ñëw ci man mère Fatou. mais da dam xooli ay mbiram. waaw ko mën. xam affaire rab. waaw mu génnaloo ko ay sarax su ko am na lu muy def ci yaramam yàlla dimbali ko. ci yàlla day àndee yàlla da koy dimbali ba mu li mu bëgg mu am ko. waaye rab yàqkat la saay-saay la dina dugg ñaar ñu bëggante lool dina dugg fi barab foo xam ne doo ko fa fooge nga na ay waay lii kii ni ñu meloon tey ñu mel nii loolu yépp mbirum rab la te ñu bari dañuy am na yoo xam ni dañ koy jaawale rab ak liggéey wala dëddale bon yu bari rab da ciy feeñ ñu ne dëddale la dëgg dëgg dëgg kenn mënu koo liggéey ba jàpp ko boroom rab dëgg dëgg kenn du ko liggéey ba jàpp ko nga ni borom rab dëgg dëgg dëgg kenn mënu koo liggéey ba jàpp ko su ne bu ne cos di wëlbatikuwaat dellu ci kaw ko def. mooy li nga xam ne da ngay jéem a fexeel ni dara mu këpp sa kaw. mu këppwaat sa kaw ah. loolu rab ba koy def ba tey rab dina ko def am na fu mu baax waaye am na fu mu bone parce que boo yoree rab dëgg-dëgg kenn laa liggéey ba jàpp la. waaye fu mu bone mooy yàq waaye foo nag day yàq. Ah. xol buy tàng la lay def. mer mu bari loo yaakaar doo ci jot. waaw am na ñoo xam ni dañuy jékki saa yi di mer quoi duñ nekk te kenn du leen def dara wala ñu xëy di dikkale jékki saa yi rek mer ah, lan la waaye loo may xoolee ni lan la waaye waaye demal fa la waa yow rek naqari direct tàng xool rabay dox seen diggante ñaar ñu puupal ñu bëggante sax la gën a rab la gën a màgg léeg-léeg ñu xuloo xuloo boo xam ne danga naa ñii de xaw ma lan lañ jot ay ñii ni ñu meloon lépp nag mbirum rab la sénégalais nag gëmul rab gëmul seytaane te lu ci nekk dafa am rab am na seytaane d'accord sénégalais gëmul rab gëmul seytaane te lu ci nekk dafa am donc euh, loolu it point yi ci am solo la beneen bi mooy euh, li nga xam ni nag ñu bëri moom lañ la xamee muy taxawaayu doom da nga cee bari lool ay turandoo macha allah te sax ñi ma gis ngay faj waxuma la sax ndaw ñi mais ñoo xam ni dem nañ ba perte espoir nekk ay mag dem ba am yenn âge yi yàllaa ngi lay dimbali côté boobu yaa ngi leen ciy faj donc loolu soxna jaara côté boobu bëgg naa nga ñëw ci ak moom ci côté jigéen ñi ayca yaa booy ñëwal. Mhm. Mhm. ci taxawaayu jigéen ñi. li ko war a rab la xam nga lu tax mu doon rab. parce que parce que yow ci sa jëmmi bopp yaa ngi am rab ànd ak sa borom kër mu nekk yow ay at munoo fexe ba am doom saa yoo àndeek moom rab ba tuur ndox ma ngir bañ doom ja tamit te ñaari ndox yi jóge ci yow ak bii jóge ci ko góor gi moom la ñuy boole yàlla boole sunu borom bu ko yàlla boolee mooy doon doom. waaye nag rab ci boppam li tax muy yàq xam nga di nga ànd ak rab muy jigéen nga am far rab mu bëgg la lool du bëgg la jege xamoon nii nuy fiiree suñu jëkkër yi la rab di fiire jabaram mm-hmm. ne la rab di fiire jëkkëram moo war a lool de yéex doom di am mm-hmm. boo àndeek moom mu tuur ko mbaa sa di tàng doo ci bëgg dara mm-hmm. mbaa mu té dem ba nga xam ne yaa ngi ci état mu téye la ne doo ci dem tey de loolu it rab mbirum rab la léeg-léeg mu wàcce sa kanam ba doo ci man dara mu xëcc ko delloo ko mm-hmm. retard régulier waaye balaa ñuy ñëw si retar régulier yaay man dama laa bëgg laaj rek ci ci ci loo xamante ni itam atari attiré na sama attention bu baax mm-hmm. mooy rab day dem ba si ba si mal formation maanaam nit ki am doom doom ji juddu indaale laago wala du mat wala mu mel muy def yenn yenn saa yi comportement yoo xamante ne ku ko xool day xam ne kii du nitu normal rab a koy def mm-hmm. loolu laa bëggoon leer loolu li nga ciy dikkee nag li ma ciy dikkee li ma ci xam man mhm. parce que da ngay dem di faju ci nit mhm. leer na ne yaa ngi faju ci rab kooko faj la ba noppi nga war ko mhm. rab day xeex ak moom d'accord foog mu indaale laago mbaa lu bon la muy def mbaa mu wëlbati boppam mbaa mu def leneen loo xam ne day nit toddi ko léeg-léeg nag nit judduwaale ko waaw man de lañ judduwaale mënuma ci dara waaye loo wàcc mii nga indi ko dab la yàlla sunu borom mën na ci dara am na nag ñu insémination tamit même bu dul da da koy indi. waaw maanaam am doom jaxase ko mhm. waaw. ñu naan rek déedéet dana am de. Mhm. nga dem boole si ñaari ndox yooyu ñu defar ko dugal ko. Mhm. mën naa taxaw doom. waaye mën na nag ëllëg ak ci biir sansé doom ja du baax. waaw. léeg-léeg nga wala mu yor laago wala xale bi mel noo xam ne léeg-léeg nga laago wala yeneen façon yëpp. yu ci bari yooyu la. noonu xamuñu dara waaye yàlla moo xam mhm. waaye rab daya nga fa mu neen ba tey mhm. te ku eh. juddu rek ànd nga ak rab mhm. ñëpp xam nañ ne itam jigéen dafa am yoo xam ne dafa ànd ak moom mooy règle wàllum règle am na ñoo xamante ne rab day téye seen règle ba du ñëw te jigéen fekk sa règle ñëwul moom mënoo doo mën a am doom mënoo am doom fekk sa règle ñëwul doo a am da koy téye da ngay toog ba am fukki at ak ñaar am na ñoo xam ne ñaar fukki at ak juróom la am seen règle tere rab ba ko téye soo koy faj muy deñ mm-hmm. soo koy génneel sarax bi muy génne boobu lay jox ga garabu rab bi da ngay deñ mm-hmm. da ngay génnaat sa régal mm-hmm. waaye tànk amuloo régal mënu fexe ba am doom tànk régal yi muy retard yi soxna jaara wax foofu doom mënu faa am déedéet buy toog ba mu yàgg gisatoo sa régal muy am ay retard dama nga faj waaw bu dee am ay retard retard ay retard demal nga faju ji te xam na rab la téye moo koy téye waaw mhm. yaa booy waaye tey euh, ma euh, li ñu wax lépp muy ci wàllu am doom ci mhm. pàcc yi nga xamante ne wax nañ ko yëpp itam am na solution boo xam ne macha allah yaa ngi koy def sa diggante ak ñi nga xam ne ñoom ngay jëflanteel ci wàllu ñaan bi mhm. ndax bañ na ko ba buñu nee ajaratu faatu ngam ñu ne spécialité ci wàllu ñaan doom la ci wàllu ngóora la ci wàllu rab la ñëpp ñëpp xam ne loolu macha allah xëccoo ko kenn ci réew mi waaye yi nga ciy joxe rek dafa bokk ci laax bi nga xamante ne saa su nekk yaa ngi koy faral di wax ma bëgg nga ñëwaatal ñu ci xam nga laax bi. ak ban moment nga koy biteel bi mhm. bala ma la koy jox. Mhm. dama lay jox biteel bi. Mhm. ba nga raxas ko ba sa régal dikk. boo raxasee bi ba mu set saa yu ma la joxee biteel boo ko naanee di nga gis li muy li mu lay faj. di nga gis système. soo raxasee ba pare ma jox la laax bi nga lekk ko bi ci yàlla àndee. ndax nag lu am yàlla. Mm-hmm. bu ci yàlla àndee di nga bala nga maa fay dangaa teg sa doom ca kaw lal waaye nag bala nga la koo jox mm-hmm. bu ma la xoolee ba laaj la sarax mm-hmm. sarax booba boo ko génnee laaju mën a dërëm li nga ma war a fay da ngay nekk ba teg sa doom sa kaw lal door maa fay laax bi boo naanee biteel bi ba mu jeex ci nga koy naan ki ngay togg laax bi lekk ci ngay togg laax bi waaw euh, yaa booy tamit euh, léegi-léegi maa ngi lay dégg nga ne ki nga xamante ne réglam dafa taxaw mënul am doom mm. mais ba tey nit itam day gis réglam mais day am jafe-jafe itam am doom te loolu rab moo koy def raba koy def mhm. ndax di nga gis régal ba noppi te mënoo am doom mhm. xam nga lu koy waral mhm. a koy def ndax la tax lay tax doom ja taxaw mooy ndox mi génn ci yow jigéen ak ndox mi génn ci góor gi moom la yàlla suñu borom di boole waaye nag pour mu boole ko raba da koy xaajale mooy waral muy tuuruwaat sa kaw waaw waaw loolu day am bu ko defee nag ah te nga gis ku la doy nga dem ca mu faj la ndax rab saay saay la nit dina dund ba dee du am doom. Mhm. am na ñoo xam ne seen loxo la ñu gisee régal. Mhm. duñ ma a gis régal ci suuf. Mhm. seen loxo rek bu ñu xëyee gi seen loxo seen tënk xonq cooy mbaa dara. ñu daal di fa potu ndaa mbaa sa potum ndaa sax da nga koy yëkkati gis ko nii rek nga dëpp ko kenn du ci naan tant que régal ji matut. loolu yëpp rab daf koy def. léegi la nga gis koo xam ne dina dund ba dee du gis régal. te boobu mu ngi koy gis mm-hmm. waaye ci matériel ma ci loxo mbaa potu ndaa bi mi naane mm-hmm. waaw ayca am na solo yaa booy xam naa ne liñ bëgg a wax lépp du ci xaj parce que waxtu bi tënk nañu mm-hmm. waaye rek uh, ñu taxaw itam ci li nga xamante ne moom mooy góor ñi suñu waxee suñu mbokku jigéen ñi dañuy laal ci góor ñi ndax ñëpp xam nañ ne eh, produit yi nga xamante ne yaa ngi koy joxe mu nekk ay produit yu naturel yu amul benn effet secondaire baax ci kattan baax ci ki nga xamante ne góor gi nga xamante ne ndoxam dafa oyof waaw mhm. waaw mhm. yokku man yu yokku kàttan waaw ak tamit dëgër oh, bañ a woyofal sa ndox dëgëral sa ndox ba tamitam nga gën a gaaw am doom yooyu yëpp macha allah. waaw mhm. loolu yëpp day am rab da koy def ndax gu rab bu fekkente ne danga am jabaru rab boo amee jabar rab ba day wujjeeg jabar ja saa yoo ayee ca moom mbaa nga nekk ca moom du la bàyyi nga nekk góor mbaa doo ko ma amal njariñ mbaa du ngeen am jàmm rab daal lu doy waar day woyofal sam ndox mhm. wax mu woyof rab a koy def mhm. moo koy woyofal mhm. waaw produit yi nga xamante ne yaa ngi ciy yëngu yi nga xam ne moom laay joxe te boo ko defee bi ci yàlla àndee incha allah di nga mën na nga war a mel te dina yokk maniwi te da ngay am jàmm ok produit la yoo xam ni ñu ngi ko liggéey ci ñaar fukki plante ak ñaar 22 plante soxna jaara 22 euh, plante yi da nga koy naan bu fekkee ci weeru koor nga ko jël nii soo ndogoo ba pare nga yëngal kaas booy ndogu nga naan soo ko naanee nag da ngay gis ni da ngay saw lu bari parce que day raxar sa deret ba pare dafay yokk man maanaam li nga xam ne mooy man bi da koy yokk te di nga ak su soxna lu yàgg te boo jot sa bopp di nga yëg bànne xëy na mag la moom du ko mën a wax beneen bi mooy ngoon gi tamit boo reeree ba pare nga jëlaat ko encore bu fekkee nekkoo ci weeru koor moom ndékki añ reer la hmm? day yokk man ba pare da koy faral da koy may doole parce que am wax na dëgg am na rab yoo xam ni dafay oyofal sa man niw ba nga xam ni boo ànd ak sa jabar ndox parce que ñu bari seen jabar yi amuñu problème ñoom it mën nañoo am problème seen ndox woyaf alors que sa jabar fu ne mu dem fa ko bu ne gis ko ndekete yow sa ndox dafa woyof donc loolu nag wax dëgg yàlla euh, moo nekkoon ci wàllu jigéen ñi léegi nag fi ñuy tëjee noonu muy def góor ñii di woyofal seen ndox noonu lay def jigéen ni muy def itam nga xam ne boo naanee garab gi dangay saw-saw mu bari sama biteel bi boo ko naanee dangay saw-saw mu bari te boo sawee da ngay xool saw mi ne suppaliku na d'accord lu mel ni saw ma nga daan saw mhm. noonu na jigéen bi nga xam ni sa règle dafa taxaw waaw soo naanee biteel bi mu lay jox biteel bi ñeent yoon nga koy naan quatre fois ci bés bi ndekki añ reer ak balaa ngay tëdd nee soo ko jëlee su fekkee ku të am doom la nee na biteel bi sax mën ngaa ëmb di ko naan waaw parce que mais première fois boo ko naan day raxas li muy raxas mooy boo gisee mbaax da ngay gis ni lu baari deret ju bari dafay génn ak salt yëpp lay génn da koy raxas ba mu set ma fekkee nga yor mititu biir da koy dootoo dootoo ko am waaw wala ballonnement wala biir boo xam ne day funki rek boobu itam garab gii ma lay jox boo ko naanee wallaahi hmm. barke sëñ Babacar Si day deñ loolu daal jigéen am ok fu ñuy tëjee mooy bala ngay ñaanal waa réew mi ndax lu duuf ci nag bi xajul ci potu ndaal yi lu duuf ci nag bi xajul ci potu ndaal yi <laughs> damay tooñ léegi nag euh, mais mère ñaaw nga sëñ ñu bii donc li ñuy fi ñuy tëjee noon nga mën a d'accord fu ñuy tëjee mooy dañ la daan dégg ngay wax cat ni ngay waxee rab noonu ngay tuddee cat. dem nañ ba ni maara day taal yi topp ba ci biiru la foofu la ñuy tëjee cat ñàkk wër wërsëg kayit boo dugal ñu dàq la soo dugalee sa këyit nga topp ci bay bëgg dee mënta sotti cangat moo koy dindi wala sarax. di nga génne sarax ñu jox la cangat cat la dañ boo génnee sa sarax moo tax doomi jullit ab catholique yi sax dàqal saraxe sa yoo yeewoo rek war ngaa génne sarax ñëpp la war ñëpp la war sarax hmm. dafa am doole ci nit heure boo génnee sarax lépp lu war a na sarax day fànq te day indi. d'accord day indi wërsëg day fànq lu bon nar a jëm si. d'accord ba fii may wax ak yow nii. Hmm. am na ñoo xam ne ñi ngi bitim réew def nañ fa sept ans ñii def nañ fa vingt ans. mënuñoo fa moo xam États-Unis surtout Amérique. kayitu États-Unis moo gën a jafe xale yi jaar ci Nicaragua bi moom kayit sax ñoom xalaatuñ ko. parce que américains yi duñ joxe kayit maanaam dëkk bu naqadee joxe kayit la lan nga mën a dimbali seen doom yi nga xam ni ak sa sët nga xam ne ñu ngi Europe ñii ngi France Italie Espagne nekk Amérique bëgg kayit mu tëye sotti ak ñuy dugal ci ambassade yi mënuñu am visa am na ku ko def de yónnee saraxam nga di ko defal ay ñaan finalement mu bàyyi war sarax ba rab dëppaat ko ba mu téyewaat xaalis ba mu dem ñu dàq ko amul visa mu ngo loolu dafa am mhm. day am xam nga euh, nu ne lay dikke nit te itam mhm. ki nga xam ne day lijjanti kayit mënta am kayit mhm. am na sarax boo xam ne boo ko génnee bi ci yàlla àndee ñu yónnee la liñ lay yónnee nga def mhm. ko ni ñu la ko waxee boo demee di nga am kayit bi ci yàlla àndee moo xam kayit boo mënu lijjanti boo mënti lijjanti rek même bu dee permis conduire waaw permis conduire rek kayit laa la wax rek ak gu mu doon permis ci kayit la bokk lu mu mënti doon boo defee li ma la wax bu ci yàlla àndee danga nga ko am d'accord lan ngay ñaanal waa réew mi xanaa gudd fan ak wér ak ah. yokkute ak set wécc nag yal na yàlla raxas xol yi tàppe xol yi yal na yàlla may nu gudd fan may ko booleem jullit ñi ne ci hôpital yal na leen yàlla yëkkati ñi ne ci biir kër yeeg feebar yal na leen yàlla yëkkati yal na yàlla sotti xéewal yu baawaan saawaan ci réew mi yépp di ñaanal sunu kilifa diine yi hmm. ak kilifa aada yi di ñaanal chrétien yi ñun ñëpp yal na nu yàlla boole jàmm d'accord léegi ba ab ab gomis dégg fi xaw nag chrétien la xaw njariñu listaxaar listaxaar ak seet. bokkuñu bokkuñu. parce que vraiment ajaratu faatu mun ngaa seetal dix mille personnes kenn ku ci nekk di bokk ak li nga koy wax macha allah. ñëpp seede nañ ñi seet moom façon bi ngeen koy defee sax yow yaa ci mën kon. lan moo diggante seet ak listaxaar lan moo da gis koo xam ni danaa dama lay defal listaxaar su ma tëddee téeméeri personne woo ko ku ne ko mën naa dama lay listaxaar te alors que dafa lekk ay gànnaaram tëdd di nelaw. man de du ko def nekkal bitim réew ba nekkal foo man manti ne jox ma sa turu ndey ak sa turu baay ma tàllal sama loxo di joor bi wax la ne ci yow te doo ko teggi lu ma la wax da nga ne am na. d'accord jërëjëf lu ma la wax da nga ne am na mu nekkoon ajaratu faatu comme li ñu leen ko waxee dañ doon waxtaan ak moom ci wàllu politique réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm nguur yàlla moo koy joxe xale laag munul soloog munul wax ak accent séeréer la yor ak accent joolaa la yor ak suñuy jaamu yooyu yëpp amul njariñ xam nga lu am solo mooy yàlla mooy jël ci nguuram placé la ko. moom la yàlla fal. nañu nangu jaam ak pexem yàlla ak dogalam nguur ñi fi nekkoon toog nañ fi 12 ans am nañ lu ne seen wërsëg la woon ñii yàlla moo tuddoon lii te dégg ngeen li Adjara Fatou wax nee na moom maamam bu góor ki nga xam ne mooy jomaay buur la woon kon donc yàlla mooy placé yàlla mooy dogal ak fal yàlla dogal na ko jaam ak pexem yàlla ak dogalam nañ ko ñaanal yàlla suñu borom te xam ne bu yokkoo ñun sénégalais yi ñu yokk su daanoo ñu ne accam waxoon nañ leen ko kon jërëjëf Ousmane Sonko yow merci beaucoup yàlla bu yaakaar bi tas yow ndax lii dong moo la taxoon a mooy xeex système bi ba sénégalais yi nekk ci jàmm ak salaam li ñu moomal suñu bopp ñu jël ko ndax fii nag bëri na fi ay nasaraan yoo xam ne lu ñu fi am ci ay suuf ñun ñu fi dëkk sax amuñu ko da ngay dem di bëgg a jënd terrain ñu la taxawal fii Martin jënd na kook Paul jënd na kook Isma Pata Ndiaye jënd na ko ba yow doo fa mën a amati dara station yi terrain yi fi nekk yëpp ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko jëndoo ñoom tubaab yi yàlla nañ ko récupéré waat yàlla bu yaakaar bi tas nag yàlla bu ñu ree li muy waxtaan ci wàllu xam-xam ngeen ko seen bopp loolu moo tax ñu affiché numéro yi pour soxla bu waaye am boo ko woowee mu faj ko jërë ngeen jëf merci beaucoup